lay ndee mbooloo lay ndee mbooloo bi sifflé na. arbitre Bébé Bismi moo ñu jàkkaarlool Djiné Bébé Papa Boy Djiné dafa décidé tey mais na def ndànk Bébé Bismi lay dajal na ko léegi ko mu génn saako yi dellusiwaat mu dóoraat ko mu génn waaye ku ba mu jël ba ba ba Papa Boy Djiné ba Papa Boy Djiné dóor dafa dal. mais Papa xeex la indi. Bébé Bismi Papa Boy Djiné. Papa Boy Djiné moo ñu féete à gauche Bébé Bismi la ñu moom la ñu jàkkaar lool. Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné dafa bëgg a xeex ak Bébé Bismi. Papa Bébé Bismi jàppante bi la bëgg. Bébé Bismi jàppante la bëgg jàppante na ak moom Papa Boy Djiné Bébé Bismi ko doomu daanu jël ko kal ko doxay daan Bébé Bismi daan na Papa Boy Djiné Bébé Bismi daan na Papa Boy Djiné kàddu Bébé daan na Papa Boy Djiné Bébé Bismi daan na Papa Boy Djiné Bébé Bismi daan na Papa Boy Djiné. gëdd la dóor la kurpañ. génn wan mbooloo mi ni leen damaa am problème wan sa adversaire ni ko dama laa ragal te faale wu la. Ballou Diouf daf na lamb doo fee da ban doo fee da guerrier lamb boo jëlee génne dawul dafa wut kii doole. affaire bopp bopp la ma jël ko ma su ma taxawee du ma dóor daanu parce que gisatu ma woon. ma reculé ma reculé génn su ko ma si complexe parce que xam nga ndam rek la ma soxla man du ragal si dara mais dama constaté. musuma ànd ak ay mbag mag ak may doo ko indi si làmb musuma ànd mbag teg naa sama loxo coach laa wax ñi nga àndal di di wax sama mbokk sama mbari na sama borom ña ñàkk maa ngi leen maa leen xam nga bilaay ku mel ni agago ak xam ñoom ñëpp bilaay walaay